yaa ngi ko wéer rek ci li ngay liggéey mhm. defe naa ni di nga am nga mais am am bi boo seetloo ñi nga xam ne ñi ngi ci biti mhm. ñoo xam ne yaa yore seen responsabilité dafa rëy mhm. maanaam ku ñëpp xam foog ñu sonal la ci ay besoin yoo xam ne nii sax yow besoin extérieur la ko tuddee quoi d'accord donc yooyu yëpp euh, ci la nga boole gestion boobu donc lu ñu la jàppale rek doyul d'accord weddi gis bokku ci waxuma ko pour man mhm. mais soo duggee ci millier bi nga laaj tey def micro trottoir mhm. yu bari nañ la wax li ni mel waaw mhm. te pourtant naam am na si ñoo xam ne ñuy jàppale nañ leen dañ leen jàppale ba ñu xaw a taxaw tuuti ñu bàyyi leen ak seen kii d'accord mais loolu waral tax ñu bañ leen continuer di leen jàppale métier libéral boo gis noonu la foog nga fabaale leen gungewaale leen ci li ñuy def parce que nag amul payoor ci li ñuy def te mu war a jëriñ réew mi parce que lu mel nii ñun ci li ñuy def dem di ci kii dafa jéggi sax école jéggi na ba université parce que dañuy yaakaar théâtre bi ñu koy def nii rek dafa nekk kaf goo xam ne nii après mu jeex amul solo nga daal di ko def léegi mu jeex mhm. ba pare am leneen lu ci duyu ñi nga xam ne nii yàlla mu ma yàlla baal euh, man yéene naa leen lu ne mm-hmm. mais dañ koy café ba dama gis benn waaye boo xam ne nii vraiment ci internet bi mm-hmm. mu def benn plaidoirie boo xam ni mm-hmm. euh, man dégg kontaan naa ci loolu mu def parce que moom da doon wax ni mais artiste ñi nga xam nii comédien lañu. Mhm. dañ war a toog ci li nga xam ne nii mooy seen comédie. mais bañ di ko dugal ci biir làmb ji ba làmb ji dénaturé. Mhm. bon wax jooju mu wax nag dafa yaatu. man waxuma ko ni bon ñoom seen bopp bu leen neexee ñu ñëw ci biir parce que mhm. métier la boo xam ni nii waxuma sax dafa libéral. d'accord mais fu di ñu tibbee rek ñu ne voilà. tii comédien la. dañ ko dugal ci làmb ji. gisuloo bëri bu muy bëree bëree comédien la. Mhm. ñu ngi fo. Ah. am na ci suñ benn artiste boo xam ne moom porte chambre la yóbbu. Mhm. ci biir làmb ji. Ah. am na ci ñeneen ñoo xam ne ñu ngi def leneen ak leneen ak leneen. Mhm. si bien que. fu laalul bu baax métier bi. d'accord xamuñ ne dimensiyon dem na ba jéggi université. ay borom yi xam-xam ñoo koy def weddi gis bokku ci boo demee France ci ngay xam njëriñu théâtre fii moom dañuy waxtaan rek ni jaar ci ci kaw noonu pour nit ñi xam ko mais boo duggee au fond di nga xam ni njàng dëgg la mm-hmm. te moom mën nga ko weccoog yenn xam-xam yi mm-hmm. waaw parce que on parle d'éducation mais aussi sensibilisation mi ngi ci biir mm-hmm. ak communication ñett yooyu communication éducation ak euh, sensibilisation ñun dañu ëmb ñett yooyu di ko defal nit d'accord lépp loo xam ne nii jëm na ci seen dund. Mhm. jëm na ci seen yar jëm na ci seen koom. d' accord yaakaar na euh, papa loolu am na solo di la ñaanal euh, yaram bi euh, féex bu baax a baax a baax ci barke Seydina Mohamed naam gëj nañ fi gis nañ actualité politique bi naam mhm. buggoon nañ ci toog di waxtaan ak yow yaram bi moom moo si dee tawoon mais dañuy def lu dugg ci actualité bi. Mhm. donc jamono ji gis nga Ousmane Sonko procès yi mu def bari na gis nga waa Sénat seen avocats yi saisir woon Sénat aussi ba Sénat ne woon Ousmane Sonko mun na bokk ci liste électorale yi na dem DGE pour ñu jox liste parrainage. parrainage am donc amaana loolu yëpp euh, dara euh, kiiwu ci ba CEDEAO aussi keroog gis nañ procès bu mu def mu war a génn verdict bi le 17 ban jàngat nga am ci loolu. waaw xam nga boo gisee wundu. boo mhm. ko jaawale kaña. gisee wundu doo ko jaawale kaña maanaam. mukk parce que waxin wolof la. Mhm. affaire u Ousmane Sonko jeexoon na ca Casamance. Hmm. waaw. juge Faye Birame Pene waagaan dugu dugu waagaan waagaan kuma sañaan. Hmm. fasaanum latir xaango nango xoox ak di ka yaxi jegaana ko podom gudo kuna podom salmono yaxum waagaan fay jën fay latir hmm. fay latsuk fay biram fay penn coro fay këmal na xam nga bari na loolu dama la bëgg a wax ni léegi ku mel noonu ñooñi la ñu war a am ci kuréelu justice ndax lépp mën a jaar yoon waaw parce que dëggam la génn teg ko léegi loolu buñ ko ñoddee di ko jëmale feneen foo xam ne nii moom layoo bi mu def nekkul day font daf ko def ngir aqulilay taalaaw te lañ ko won ak kayit ñoom na kii ak yooyu dossier bi yëpp daf ko xool soog a dugg ci layo bi. Mm-hmm. bi mu joxee verdict. waaw guddal jële bi mi ngi déedéet d'accorduñ ci dañ koy toppaat. dañ koy toppaat d'accord. jëm fan. Mm-hmm. jëm fan. kon danga jàppoon ne. loolu woor na leer ca Casamance comme ni nga ko. waaye sotti na bu yàgg. guddal jële rek a fi nekk. Mm-hmm. te nag. Mm. dafa am yoo xam ne jekkul rafetul ci nit. d'accord. nga bëgg kut ko kut toroxal sa moroomu jullit ni yow bëgg koo xañ te yàlla xañu bëgg toroxal te yàlla toroxal toroxalu ko nanga ko natt sa bopp set kenn ku nekk laa wax boo nekkoon place Ousmane yooxu nga bu jàgg moom nag daf ko jël ci cadre jullit ba nga xam ne nii eh, li mu noppi te ëmb ko mu ëpp fuuf lii ñu topp di ko kaw kawe waaw te nag bu sottee la ñuy xam yàgg naa di ko wax sotteegul bu sottee la ñëpp di xam taw la boo xam ne nii soobagul waaye bu soobee ci rasulillahi laa koy waat mu gën ci Sénégal Ousmane Sonko waaw Mm-hmm. lii ñu koy sonal yëpp yëpp yëpp fu ne ñu jaar ko fa mm-hmm. xam nga lu yàlla ji ci suuf deqi ko dana metti lool lool lool fu nekk di fa jaar mm-hmm. waaye ba ba muy mujj ni ko sa Seck di waxe jusqu'à l'extinction du soleil dëgg rekk lay jaar d'accord euh, papa comme ni ko euh, Sénégalais yi jàppee dem nañ sax benn bii mooy dernière chance am est-ce que am nga yaakaar que ni euh, maanaam verdict bi euh, le 17 bu wàccee dinañ bàyyi Ousmane Sonko jox ko ak ak ak yelleefam pour mun a bokk pour mun a nekk candidat 2024. suñ ko soxluwul. Hmm. dafa leer nañ. da nga jàpp ni mën nañ ko soxlu. ah jaar yëpp lan ay soxlu yooyu teqatal ak pàdd ak noo ñu ni tafatin def ëmm seen noonu lañ koy def hmm. moo fi nekk hmm. waxtaan wax dëgg ci la d'accord dafa am loo xam ni nii gëmm kenn du ko wax gëmmal kenn du ko wax gumba ndax hmm. bët yi patus d'accord du dëgg waaw eh, yëf yi booy dem di dem di dem di dem dafa nurook soxor wala iñaan yow toog nga toog toog jaar nga fu ne mhm. am teraanga june nga toog boo ni suur nga dangay dem sa yoon mhm. bokkutoo waa yaa xëyti mu laan ni doo bàyyi ñi bëgg a bokk bokk wax jàngoog dem jongante ñi bëgg a bokk mhm. ñëpp dañ leen war a bàyyi ñu bokk d'accord en ci ay affaire u parrainage yi teqatal bi foofu la ne léeg-léeg ñu gis la sax nga motal ñu daal di rocc dara daan na voilà nii la demee nangam motalul walla lii moom manqué wala ñoo dañu ëpp yooyu candidat deux cent foo ko mos a gis ah, deux personnes yoo xam ne ñëpp ku ci nekk bëgg nga dem ci élection mm-hmm. inclusive waaw mm-hmm. mais nag deux cent dafa ëpp ci Sénégal mm-hmm. deux cent personnes waaw ah. war nañ ko seetaat seetaat bi mooy. ñu seet li nga xam ne nii moom ngay teg ci kii pour mu mën la may gannaaw parrainage bi. Euh, nooy bokkee ci élection bi. xaalis boobu. Hmm. nañ ko yokk suñ ko yokkee. nombre bi gën wuti ko wuti ko day metti ci ñenn ñi. Hmm. bu ko defee nga xam sa bopp. Hmm. cuuc war na xam lekk ñi. ñoom ñëpp. xam na ni xel ni mënuñoo dem. Ah, kon papa amoo benn euh, doute. ci que ni euh, le 17 Ousmane Sonko euh, mun nañ ko jox ay ak ak yelleef. suñ ko jaaralee ci yoon. d'accord. Pastef nee na A ba Z. waaw c'est le seul candidat de Pastef. Mhm. loolu lañu wax. man mani ni Z ba A. Mhm. dañuy ba Z. Mhm. ma ni ba A. te nag. waxtaan wax dëgg ci la Ousmane na mu gënee ci senegal wallahi buñ ko xamoon teqatal yeeg mbapat yu metti yeeg soxlu géeg ak euh, wurut yeeg yëpp dara du fi amati mhm. dañ koy jébbal rekk parce que euh, il il se présente comme un messie mhm. c'est le messie Ousmane Sonko bëgg bëgg bañ ji yëpp ay wax la coow waaye xam nañ ni politique moo ko rax. bu dee dëgg rek. Hmm. Euh, je peux confirmer que c'est le meilleur candidat le meilleur choix pour le Sénégal. Hmm. weddi gis bokk ci. gis nga gaal yi bari. Hmm. ñëpp di fëx di jëm Europe. li ci ëpp yaakaar bu ñu amoon ci Ousmane Sonko la waxtaan wax dëgg ci la. maanaam téye bi ñu ko téye moom moo tax xale yi. parce que langage bi mu leen tenir. waaw ba ñu gëm ko. Mhm. fi ñu ko dugal. désespoir la indi si yenn jeunes yi daal ni budul moom daal ñun xamatuñ kan la ñuy jël. Mhm. ou kan la ñu kii. même bu dee candidat benn bokk yaakaar déjà. Mhm. Euh, kooku moom du politicien. kan ci. ah Amadou Ba Amadou Ba du politicien. non non du politicien. ah bon ba Macky Sall tànn ko teg ko. waaye daf ko tànn teg ko nii. nga parawan. parawan. Hmm. bu la neexee nga defar sa néeg ba mu neex la. Hmm. nga jël rido boo xam ne nii di nga ko lal nii mais di nga gis li nekk fale. Hmm. xam nga rideau boobu la ñuy wooyee parawan. parawan ah, d'accord waaw. mais Amadou Ba c'est pas un fin politicien. parce que li politique laaj. waaw ah. nekku ko. dañ ko ko forcer quoi boobu. non non du bëgg a maanaam dañ ko jël teg ko fa. Mhm. ba pare nag tegin boo xam ne nii lu war a seetlu la mënoo nekk premier ministre ba pare nekk candidat benn bokk yaakaar. Mhm. nga boole ñaari ñaari mbubb yoo xam ne nii bëgg leen solo ndox. Mhm. day diis gan ci moom. buñ ko waxoon buñ ko waxee yëpp. Amadou ci boppam. vraiment en toute sincérité man bëgg naa ko lool du bañ ko. du it sikkal ko parce que nit la koo xam ni que j'estime parce que il a été loyal jusqu'au bout militaire la xamul caaxaan vraiment en toute sincérité waaye nañ ko delloo cër ba moom mu moom bu duggee ci politique dañ ko ci forcer rek mais c'est pas un fin politicien comme l'est l'actuel président nga xam ni qui a fini il l'a même déclaré. wax na ko nee carrément moom jeexal na. ba mu ngi tàggoo ci yenn kër yi yenn kuréel yi. ah tàggoo xam na ni li ko fi dese bariwul. d'accord ay weer la rek. bon bu ñu duggee xam naa ni janvier fa tàggoo bi di gën a bar di tar. Mhm. waaye na ko def ci njekk ak teranga comme ni mu koy laajee jiit ñi. waaye nag. ci mm. njëkk ak teraanga noonu la wax. Mm. moom it na dem rek. ci njëkk ak teraanga. <laughs> d' accord euh, papa loolu. di dogale nit ñee kalak yooyu nangam nangam. Mm-hmm. c' est un grand politicien. il est fin. Mm-hmm. moom moo jàng dëgg dëgg dëgg ci Ablaye Wade mais rax ci dolli. Mm-hmm. daf ci rax dolli ci. loo xam ne ni man day comme gis naa ko mu dem màkk ci ay image ànd ak jabar ji j'estime que bu dellusee politique bu ëpp ji war ci woon raxaat boppam parce que soo demee màkk dellusi am na lu ñu suñu religion di la sant pour nga nekk ko parce que politique bi nga xam ne nii ci la dugg da koy yàqal image boobu te demul màkk sans pour rien dafa dem makk ànd ak soxnaam ñu jëm ba jàkkaarloog euh, Muhammadu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam sama trondo man direct la ñu tuddee macha allah donc euh, yenn yi daal euh, rafetul d'accord rafetul ci ku dem baytilal haram mhm. ba dellu si amoon looy def di siggi saakaal sa bopp kooku rafetul baaxul. d' accord euh, papa loolu am na solo bu baax a baax euh, comme ni nga ko waxee donc ñu jëm ci la 17 euh, nee naa la verdict yi ci lay ci lay wàcc donc gis nañ benn mouvement lacoste bu ñam dàmbooj organisé ñoom nee nañ dañuy manifester pour soo ko aussi ni jox ko ak ak yelleefam ban jàngat nga am ci loolu. non am nañ ci droit manifestation fii. Ah. terewuñ ko kenn da nga ko yëg rek. Mhm. loolu la ñu bindee ci constitution bi. Mhm. kon kay duñ ko bañal kenn. mais amoo yaakaar ci li nga xamante ni moom mooy verdict bi. Euh, ñu kooku kooku ko. gis nga ko ci nekk ak say stratégie. ñoom. Mm. bi ñuy layam layam yi di jël seen candidat di ko yóbbu naan euh, xaw ma nuñ ko tuddee ci tournée économique la. Mhm. dafa lal dara. d'accord du dëgg. Mhm. la lal jéemuñ ko lu bët ba xam lan la lal mhm. mais ñi ngi ciy dox di ko def ganu ganu sax léeg ñu rax ci tuuti affaire économique dem di laaj ak ay nangam nangam ak yooyu mhm. mais li leer ba leer campagne la déguisée mhm. kon jàpp nga ni le 17 euh, manifestation bi dina am ah waaw c'est leur droit le plus absolu qui a été signifié dans ce qu'on appelle la constitution ñu war ko respecter. d'accord manifester. droit. Mhm. jóguñu di manifester ci bànneex. d'accord dañuy manifester ci lu ñuy jooytu. Mhm. ñu yàgg ko dëgg dégg te bañ leen ko defal bañ leen ko may. d'accord te tollootuñu foo xam ne nii wax dëgg fa yàlla. Mhm. nit ki day jaar ci li constitution santaane nga jël na ko rapporté. d'accord loolu abus la. te ab yi boobu yaakaaruma mu tilimal suñu waa ji nga xam moom mi ngi tàggatoo pour dem. d'accord léegi fi mu nekk nii bii def wees mbuus. Mhm. c'est-à-dire lépp loo xam ne daal ñoo ngi koy xalaat politiquement pour def ko. Mhm. franchement man de dama leen di déconseiller. d'accord waaw parce que nag loo fi tilimal fi mu nekk nit mun na cee profité ba def naka su dul noona. Mhm. léegi nag comme ñun ñëpp jàmm ñuy wut. la tay set bu setul ñu sumb ko fas yéene ko fóot mhm. bu paree ñu weer ko mu wow woowu bu rafet mhm. ndax sumb bu set boo gis ñu weer ko mhm.